ñaan yàlla waxtaan bi ñu war a waxtaan lépp loo xamante ne waxtaan nañ ko mu nekk njëriñ ci Sénégal nekk njëriñ ci sénégalais man la Ngoné Diankha membre de Taxawu Sénégal euh, membre de la coordination départementale de Kaolack. d'accord Ngoné ñu dugg ci waaw euh, fan yi bari na lu ko indi ci dialogue bi la commencé. mais dafa am benn petit rappel boo xamante ne dama koy bëgg di def balaa may xuus vraiment ci sa question bi damay fàttali ne xalifa Ababacar Sall di suñu leader di la président de la de Taxawu Sénégal dafa nekkoon candidat en 2019 lu ëntu loolu Khalifa dafa nekk di liggéey jël maire de Dakar en 2009 en 2014 mu am ay situation yu ko amani mu génn Benno Bokk Yaakaar dem def liste parallèle jëlaat Dakar sénégalais am ci moom yaakaar gis Khalifa li mu liggéey Dakar bëgg pour ñu liggéey ko Sénégal Khalifa commencé di dox ci loolu ñu gor ay tànkam bu ñu fàtte ne dafa def presque trois ans prison dafa def presque trois ans prison te bu ko sañoon te te bu ko neexoon du ko def ndax proposé nañ ko lu nekk mais mu ne Sénégal moo ma ñor sénégalais yi ñoo ma ñor seen yaakaar bi ngeen am ci man du ma ko tas te du ko te du ma xaawi suñu kóllëre bi nga xamante ne dañ koo fasante. ba ko génne ñun ñëpp xam nañ ko kon c'est pas ce même Khalifa mooy ñëw ba tey naan day dem di négocier wala day dem di deal mais nag dafa fekk politique dafa am ay moment yoo xamante ne moment de de de de de il faut savoir poser les armes et savoir aussi discuter autour de la table ñoo nek un moment crucial nekk en année boo xamante ne préélectoral la le président de la république woote dialogue national mais Moussa man li may dem ci tali bi di ko yuuxu di ko wax dinaa président li président la mais man je préfère jàkkaarloog président wax ko li nga xamante ne dama ko bëgg a wax te keroog dialogue ba bu ñu fàtte ne Khalifa moom moo njëkk a souligner benn question bu centrale muy question troisième mandat ba muy dem lan la ñuy doon wax du ko fa wax boppam moo ko fa yóbbu ba mu demee point yi mu njëkk a wax ba faa mu ko wax sax da koo bind ne point yi lii la question troisième mandat dañ koy waxaat dañ koy waxtaanee ñëpp bokk dañ koy waxtaanee nage bi dañ koy waxtaanee ak yeneen ak yeneen ak yeneen bam demee de gis nañ ko ñun de bett ñu ba mu waxee de kontaan nañ tasagal nañu kon tey li tax ñi nga xamante ne ñoom dañuy bëgg di xeex pour bokk ñoom ñu bañal xalifa dem waxtaani te pourtant xalifa waxtaan ba muy waxtaan ñoom anoon na lañ njëriñ ndax xalifa dafa prôné la participation de tous te loolu mooy dëgg ndax Sénégal mu fi nekkee mu nekk demo dëkk démocratie ñëpp dañoo war a bokk ci ay élection élection warul am filtre kii du bokk parce que ku nekk boo demee ba sa ban ka da ngaa war a gis ki nga xamante ne moom nga taal na bëgg a bokk bëgg ko voteel bëgg mu jiite la te si xalifa si loolu lay dox dialogue bi loolu moo ko indi te ñun dañuy assumer suñu position xalifa nëbbatul laaxatul avant moo dem sa dialogue ba la wax carrément ne damay dem wax ko te ba mu koy te ba muy dem it ñun ñoo ko jox mandat dama lul boppam de daf ñoo laaj si département yëpp la laaj woote laaj leen ñu def suñu ay résolution jox ko mandat ne ko jox nañ la fa vert suñ ko waxoon bul dem du dem mais ñun ñoo ne ko demal parce que xam nañ ne loolu njëriñ la fay jógee te ñëpp dinañ si gis seen bopp li moo indi dialogue bi te ñun suñu position dañ koy assumer il faut aussi que les sénégalais ou bien certains sénégalais sachent différencier les la signification des mots dialogue n'est pas négociation dialogue n'est pas compromission au contraire c'est le fait d'être sincère le fait de s'asseoir avec l'adversaire et de lui poser et de lui dire nos vérités et loolu la ñu jàngat ci loolu lañ nekk gis nga Moussa socialiste yi ku leen xam xam na dañoo am ay conviction surtout Khalifa ñun dañoo bokk ci ndaw yi nga xamante ne dañoo xam Khalifa bi mu génnee parti socialiste ñu gis li mu dund parti socialiste Khalifa daf koy faral di wax ne taxawu Sénégal et né dans la douleur parce que ni mu génnee je ne vais pas rappeler l'histoire mais ñun ñëpp xam nañ ko ni mu génnee Khalifa bu fekkoon ay privilège wala ay prébande wala loo xamante ne ay négociation daf ko soxal mais du agsi fii du agsi fii xoolal la trajectoire de l'homme si lu mu jaar yëpp jaalee ko bu gën a récent muy 2019 tooñ biñ ko tooñ mu war a bokk ñu xañ ko ay droit yam bokkul mu génn ñëw taxawaat nekk dans l'opposition yeewi askan bi bi ñuy wax tey yeewi bi mais yeewi bi ku ko taxawal xalifa moo ko taxawal liste yeewi yi ku ko defar faa ko defar ba ko defaree ba pare lum ci déggul amut ku ne saaga na ko ku ne xas na ko lu ne wax nañ ko ñi nga xamante ne Sénégal ñoru leen seen intérêt bopp leen jiital lu nekk wax nañ ko ko ndax lan ndax dañoo gis ne place yi nekk baaxul wala xalifa da leen a da leen da leen soxaree wala da leen def leneen est-ce que mës ngaa dégg xalifa tontu musul tontu musul wax dara parce que xam na li ko ñor li ko ñor lan la réew mi Sénégal ak sénégalais yi ak soxla sénégalais yi moom ci loolu la nekk ci loolu lay dox loolu nag moo suñu ay conviction conviction la ko jaraloon 2019 mu dem mu dem tëdd trois presque trois ans prison muy métti mu di ko muñ ay ñoñam di xeex lu nekk ñu def ko ba tey jii mu génn dem ñëw taxaw ci opposition dëggalaat boppam ah nag dëgg dëgg nag nekkul buñ toogee ba 2024 war a ñëw la Khalifa dem di négocier loolu ku xam lom di xool démb xool fi mu jaar waru laa traverser à l'esprit ñuy wax nag ne ñun suñu ay conviction dañ koo gëm te ci la ñuy dee ñun Khalifa la ñu àndal moom la ñu bëgg te lu mu ñu jëm li ñu li ñu bëgg mooy 2024 ñu porté ko mu dempale palais bee ndax incha allah moo fay toog ndax waa ji moom moo ko fi war a jëli te moo koy remplacé ñun loolu lañ gëm loolu si ay conviction xam nga dafa am loo xamante ne ñun mosuñ ko laajte amnistie mosul génnee suñu suñu suñu suñu suñ suñu boo ko déggee amnistie su mu génnee benn maîtresse waa lañ toog conseil des ministres président wax ko fa ñun ba ko waxee ñun am na man mii di wax génn naa si ne président moo ko tëj moo ko tijji tey buñ toogee ba mu ne da koy amnistier ñun amuñ ci kàddu amuñ ci luñ ci wax ku ko jox nag ñu jël waaye nag laajte wuñ ko defuñ ko dara ñun lu ñuy prôné mooy la participation de tous loolu benn la de tous nag mooy de tous les opposants qui veulent accéder à la magistrature suprême parce que démocratie dafa am lu ko lal te li ko lal mooy ay nit bu ñu nekk di ut di dagaan baatu askan bi ku nekk dañ laa war a may possibilité boo mën a demee déposer sa caution déposer li nga xamante ne lañ lay laaj pour nga mën a bokk ci élection nga mën a dem compétir ci ñun loolu la ñu prôné te participation le tous nag ñun dañ ci bokk parce que ñun sénégalais yi dañoo woolu bu ñu fàtte ne deuxième personnalité dëkk bii te ñu fal ko taxawu Sénégal la bokk ce qui c'est Barthélémy Dias il est le maire de Dakar taxawu Sénégal la bokk. te ku ñu fal deuxième personnalité dans ce pays si ku ñu fal moom la kon taxawu du parti boo xamante wala du loo xamante ne dañ koy yóbbaale wala day taxaw daal damay am leeg damay dem fii déedéet taxaw si ay principe lay dox taxaw dafa structuré taxaw dafa am ku ko jiite xam fu mu jëm te ñun ñi mu ànd ak ñi ñu ànd ak moom tamit xam nañ fa ñu jëm ndax yoon bi mu ñu tracé foofu la ñuy dem amnistie ak révision code électoral bu mu ci mënti doon l'essentiel mooy ñëpp dañu war a bokk ñëpp képp ku bëgg a bokk te yoon may la ko dangaa war a bokk ak moyen yu ñu ko mënti defee loolu ñu yóbbu si dialogue bu looloo tax ñuy waxtaan te incha allah yàggatul pënd bi léegi mu wuri ñun suñ taxawaay ci dialogue bi sénégalais yi koy gis sénégalais yi ñu ngi bàyyi ñu jugé ñoom rek dañuy teg suñu ay acte politique bàyyi lañ ñu apprécier ah bon man nag contrairement aux autres Yérim je vais pas le le parce que day nit koo xamante ne dama koy nangul benn affaire li mu li mu xam wala li mu bëgg rek lay wax wala lu mu gëm jàpp naa ne lu mu gëm loolu la wax loolu nag mom la engagé parce que man ay waxu wala li nga xamante ne ni moom la gëm wala moom la moom la sentir a wax man aw ma ci commentaire bu ma ciy def généralement parce que dama ko koy nangul parce que aussi c'est ça la démocratie ah ñu Xalifa loolu nga ñu jàngal le droit à la différence il faut que ñu nangul nit ñi seen ay conviction ak seen ay gëm ni ñuy taxawee ni ñuy waxee moo tax ay euh, position Yérim dama koy respecté nangul ko ko xam ne loolu la loolu la jàpp ne mbir mi noonu la war a demee man nangul ko ko parce que ñu ñëpp ku nekk am sa position boobu kii bon tout d'abord li ñuy ñu ngi koy mastaw di ko ñaanal blocus bi ñu ko defal ñu gaaw dindil ko ko parce que du du la du lu rafet ci démocratie loolu benn la soo la demee politique soo la demee dans le sper politique loolu bokk na sax li xalifa li gën a tax xalifa dem parce que xalifa bu demee jàkkaarloog président wax la participation de tous chaque jour maa koy répété parce que dafa am solo parce que ñi fi gis ñuy tëbakanal yépp dañoo bëgg bokk xam nga ñu naan yéen dañ ne yéen da ngeen bokk rek mais fii ñëpp a bëgg bokk parce que ñi fiy nekk di tëbaka dalaka toj dañoo bëgg seen leader bokk ñi nga xamante ne dañuy dem ci plateau yi di wax dañoo bëgg seen leader bokk parce que dañoo war a bokk parce que bokk bi droit la du exception te pourtant nag suñu leader de ba mu demee jël kàddu loolu la njëkk a wax ñëpp dañoo war a bokk te ñëpp dañoo war a bokk boobu mi ngi ci te koy liggéey te biñ ci nekkee incha allah jàpp naa ne Sonko dina bokk parce que dëgg-dëgg nag war naa mën a bokk même si nag ay seen taxawaayu yeewee askan wi dernièrement rafetlu wuñ ko rafetlu wuñ ko parce que xalifa li mu li mu li mu li mu tekki ci yeewu askan wi li mu defal yeewu askan wi ak limu mu daj ci yeewu askan wi man jàpp naa ne man kat man ngoone jànqa waroon na am waa yeewi yeneen taxawaay bu ñu taxawee vis-à-vis du président Khalifa Sall parce que mérito ko Khalifa kilifa la Khalifa góor la. te Khalifa day sàmm coloré jiw leen ko waaye nag sénégalais yaa ngi gis on laisse les sénégalais de juger. Euh, la sortie du gouvernement euh, la semaine passée bon seetaan naa ko comme sénégalais yëpp ni nga ko seetaanee le gouvernement ils ont des informations que nous on n'a pas. donc ñoom li faral di di émettre li ñuy faral di wax ñu mënuñ ci am tamit yenn commentaires yi. parce que ñoom li ñuy wax ñun xamuñ ban fan lañ ko teg sur quelle base lañ ko teg donc duñ ko affirmer duñ ko infirmer leen leen rek lañ ci del dañ kon ko jël en compte di bàyyi xel loolu dong la parce que quoi qu'on puisse dire c' est eux qui dirigeant ñoom ñoo diriger ñoom ñoo yor sécurité publique bi ñoom ñoo xam li ñuy wax fi ñu ko teg ñi gëm ak ñu gëmut de toute façon wax nañ te li bien yu sénégalais yi mooy ñu bàyyi xel ci seen ay wax quoi qu'on puisse dire ak quoi qu'il puisse aussi li ñu bàyyi xel ci li ñuy wax ñoom parce que ñoom li ñuy wax kenn xamul man baas lañ ko teg man xaw ma ko keneen nit xamul ko en tout cas dégg naa te dinaa bàyyi xel te on prend acte li ñu wax ci li ñu wax di leen ñaan rek ñu gën a yërëm sénégalais it nañu gën a yërëm sénégalais di gën a dawal yërmande vis-à-vis de leurs compatriotes. bon laan vraiment vraiment euh, damay def benn cri de cœur parce que principal problème bi nga xamante dañ ko am mooy amuñu ministre de l'élevage amuñ ko parce que kan mooy ministre de l'élevage Amadou Ba c'est qui c'est le ministre de l'esport en même temps et c'est le premier ministre en même temps nañ waxante dëgg lu tabaski Sénégal dëkk bu nekk quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans fi nga xamante ne nekkuñu musulman sax dañuy dañuy tabaski ndax tabaski moom fête boo xamante ne ñëpp koy def ñu jël ministère bu toll ne ministère de l' élevage boole ko ak yeneen ministère nañ xam ne nag prise en charge bi war a am mënul am mënul am te nag si dëkk bi lañ dëkk heure bii bu desaan tabat li si des matul ay près d' semaine moo si des te heure bii fekkoon na dëkk bi xar yi xar yi ñëw fooroom mi ngi fees mais instant yi xaru xar xaru yar rek a fi nekk boo laal genn góorgóorlu amul njëgam ndax dëkk bi kat xam nañ ni mu méttee. xaru coogo li ñoo daan ñëw góorgóorlu yi nekk di si nekk di si faj seen ay soxla jël yóbbu seen ay kër mais instant yi problème bi ñu am mooy amuñu ministre de l'élevage te man jàppoon naa ne avant tabaski bi le président dina mën a nommer kenn pour mu mën a sax approvisionner le marché mais ak nii muy demee moom ñi ngi euh, ñi ngi ñi ngi ñaan yàlla rek que euh, xar yi ñëw parce que tamit des na ba tey des na ba tey xar yi ñëw mais quand même buñ amoon ministre de l'élevage si lay doon gën waaw maa remercier bu baax di la remercier ci déplacement bi ah, di wax sénégalais yi nag nañu xaar dina ñëw seen ay biiri kër dinañu ñëw seen ay biiri liggéeykaay dinañu ñëw seen ay biiri grand place dinañ ñëw si marché yi dinañ ñëw ci nat yi fépp foo xamante ne mbooloo ngi fa sénégalais ngi fa dina fa ñëw parce que nag ñu dañoo am lu ñu ñor te li ñu ñor ak li ñu yëkkati mooy suñu waa jii di xali Khalifa Ababacar Sall le grand maire l'excellent maire dañoo bëgg en 2024 mu nekk le président de la république parce que projet man jàpp naa ne ma projet bu gën ci Sénégal ay idéo yam yaakaar naa ne mooy idéo yu gën ci Sénégal te jàpp naa ni la majeure part des Sénégalais moom lañ moom lay moom lañ tàmm et que bis bu bokkee incha allah da day bokk le au soir du 25 février dinañ dégg wéew incha allah.